jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baax a baax di leen jaajëfal di leen di leen nuyu bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Wassare ndax comme ni ma koy waxee chaque jour rek euh, ñun làmb dong moo ñor fépp fu làmb nekk fu nekk dañ ko bëgg a dem jëli ñëw dëgtal leen ko di nuyu sëñ Bas moo ngi ca dëkk ba di jël làmb ji ndax ko ne xam na ne làmb ji tijji na ca dëkk ba ndax mbapat bi démb macha allah neex na lool di nuyu Baye Jili ah di nuyu guub Wassare bi yëpp tey nag euh, dañoo ñëw seet si ndaanaan seet si koo xamante ni muy Mama Yaa boobu Tëngéej waaye gis nga comme ni ma koy waxee rek wasaare moom làmb dong moo ko ñor ba ki démb dañoo dégg ne combat am taxaw na ñu dégg ne kombaam am taxaw na euh, moo ki nga xamante ni mooy Kara Dollé moo tax tey ñu bëgg ñëw waxtaan ak moom ci làmb ji waxtaan ak moom ci li nga xamante ni jóge ndax ku ne xam ne ne euh, fan yi affaire xawul neex ci moom waaye mu tase koo xamante ni ndaanaan la ci wàllu bëre bu tuusee mu neex ko mu neex moom mi tamit di ndaanaan ñu bàyyi ko mu nuyoo après ñu wéyal waxtaan bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay d'abord onze billah bismillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba maa ngi lay béggee bu wér di béggee waa àdduna di béggee sama adversaire bi ma war a bëreel si benn lax temps di siyaar waa àdduna di siyaar waa Tëngéej particulièrement Rio parce que ñun amuñu leen lu dul Tëngéej ah, moo tax ñuy sonn. waa gis nga comme ni ngeen ko gisee rek masque yi xam naa ne man di ngeen ma xàmmee euh, Ousin la waaye kii ñu kii ñu seet si tey mooy Mamaya Mamaya boobu Tëngéej comme que mesure barrière dañ ko wax faw ñu respecté ko euh, joxe un bon exemple xam naa nag après ci tuuti dañ ko tekki mën a woyal waxtaan bi mais su ma bëggoon xam kan mooy Mamaya Mamaya fan la dooree ak lan la kañ la dugg ci làmb ak ñaata combat la def soo ma ko doon résumé ci lu gàtt. waaw si lu gàtt lu yomb la Mamaya benn nit la benn jaam bu xeebu bu yéemu bu dëkk Tëngéej. juddoo hôpital géej màggee Fass yaroo Tëngéej léppam nekk Tëngéej waaw nekk benn jeune bu gëm boppam bëre nag am treize combats waaw mu neex mu metti torop nag terewul ñu si sant yàlla bu wér a wér a wér wér kooku mooy Mama Yaa buñ ci pour tënk ko rek si lu gën a gàtt daal kooku mooy Mama Yaa. soo ma dee limal maanaam mën naa ne def nga ñaata ñaata victoire nga ci am treize combats yi. treize combats am naa si six xaw ma victoire. li ma ma ci quatre ñoo xamante ni xam nañ leen ci làmb. quatre ma limal la xam nañ ci El Hadj Diouf bu écurie Balla daan naa ko mobile bu Grand Yoff daan naa ko Alain bu écurie Balla daan naa ko Tony bu Kër Mousse daan naa ko daan naa Sankos bu Thiès daan naa ko euh, Tyson gin gi neew daan naa ko xam nga mooy loolu daal mooy loolu. mais mais mais ñu gis nga dawal loolu noonu lépp. Mamaya au début Mamaya affaire dafa neexoon bu ñuy tous dayo bi taxawaay bi macha allah kenn du ko werante mais ñu dem ba ci biir affaire xaw a taxaw lan moo ralenti carrière bi. waaw métti rek parce que du ma wax nag mais ñun dañ nekk dëkk boo xam ne Tëngéej Rio day suul ndaanaan émission bu ma def dama koy wax tey ñi lay war a jàppale dëgg jàppale bi mooy des mais ñi ngi gën a dellu nag di tàllal loxo parce que man dama am cër si làmb man dama am cër si làmb te chaque jour. damay jóge si làmb sax daanu si si ginnaaw ëllëg sax wallaahi azim ñu proposé ma beneen combat te dara mayuma loolu noonu lu dul gëm sam bopp am sama ambiance su làmb làmb du ma ko yàq xaw ma ban làmb mooy yàqu di jóge si nit mais du jóge si man bu yàlla defee jàmm man looloo tax promoteurs yi aussi dañuy sawar pour tëggal ma làmb xam nga ma koy sante yàlla nag ma koy sante yàlla. Mhm. ok promoteurs yi dañuy sawa pour tëggal la combat mais damay ñëw ci sa ñaari combat yoo xamante ni dafa mujj su diggéen sa combat yow ak Ndandi Fall combat bi euh, mën nañ ne yaa ëpp Ndandi Fall yaa ko sut yaa ko ëpp ci lépp ndax ñëpp dañ ne woon Mama Yatté bu ñëwee day fel Ndandi Fall jàll mais nga ñëw combat bi yomb ba pare kenn kenn comprendul waaw noonu la demee parce que man mën naa ne làmb jooju noonu si laay doog am defet si làmb te boobu ba léegi nii moo fa jógee ba léegi si ay tolo laa nekk waaw man dama daan duggul si làmb damay dem géej rek dugg si ndoxum géej mi fii si ndox mi wut samay biteel xam nga ñëw taxaw combat yi ma bëree yu ëpp gàllaaj sax wallaahi azim pour ma dugg ko si làmb pour ma dugg ko si àll bi dem wuti ji ko problème la. lan lan lan lan moo taxoon loolu da nga mbapatul. xam xam mbapat mbapat na man avant may dugg si arène bi nii jël naa ay drapeau yu bari sama koñ. man ma jël naa. nga dem bay bëy combat mag di bëy Ndandi Fall euh, su ma déggee daal dañ lay jéeg xaw a kii laal ci mystique ak. ne du ne dañ ma laal mais lépp a ngi si làmb ji làmb jooju li si laxasu làmb jooju billaahi wallaahi azim laax du ma tëdd guddi sax doon ko xalaat làmb jooju jàppoon naa ne mooy làmb ji gënoon yomb si samay combat. moo gën a yomb ci say combat tamit. non waaw moo gën a yomb yombul. parce que dama ñëw tey moo gën a yomb say combat maanaam jëli bi man man ba léegi. waaw comme man ba léegi nii may wax ak yow comprendre ma mais làmb nag dafa nga xamante ni ni ni kàggu mi la. maa ngi moom déggoo li ma la wax bëree nañ Mbapat Iba Mar. Mbapat moom laaj ko. bëri na noonu Mbapat. combat boobu dafa machine dañ machinil. waa léegi nga ñëw ba pare di ko xeeb. waa di xeebu ma ko parce que boobu noonu xam nga man ak xam nga Mbapat ak dóor du benn. Nandy Fall xëy na làmb moo tëre di mais si lépp nii man tey jii mbër yi ma bëreel ñu daaj ma yëpp ku si tëjoon néeg wala ñu daje si àll di nga sàq parce que man fit bi ma amuñu ko li ma capable ñemewuñu ko def mais làmb nag moo doon loo xam ni man dem naa ba guddi yi ñu toll nii xam nga lu ma man bu ma soñoon moo doon dogal si làmb ji lan laay indi làmb muy dem ba troisième round bu ñu la njëkkee daan nga ñëwaat bu ñu la daanaatee jeex na bu ñu la daanee ñaari yoon nag jeex na parce que da ngay entraîné def làmb lépp lu war war a ñëw taxaw pour imposer ñëw lu benn action bu ndaw ñu ni jeex na man loolu bokk na si li may gën a métti làmb su ma sañoon day am trois rounds. mais yow sa digganteeg Ndandi Fall lan nga yaakaar ne combat boobu moo ko yàq parce que combat bi yow man comprendre loo amateur yi affaire bi da leen jaaxal daal. waaw war a daanu rek daanu tey loo wax ñu ni da ngay salteel loo wax ñu ni man boo man bu leen ma wax loo xam nga. war a daanu làmb ji làmb ji jàll na mais xam nga il faut ñu ñëwaat ci fay yi parce que nit ñi comprendre sa digganteeg Ndandi Fall. yaa ko ëpp yaa ko sut na nga moom su ma la waxee dëgg. dama ko xeeboon si lépp nag si misig si si si kàttan nag si lépp parce que dama doon contact ak ñu ko ëpp bëre ñu ko dàq bëre di leen defal affaire man si lépp combat boobu déggoo li ma daaw mu tëdd guddi xam nga dina am combat sa tëdd guddi di ka xalaat wala di ko liir wala taal sama ordinateur bi di xool. nit ki mais tamit nga naagoon moment boobu. waaw comme ko daanoogul waaw waaw instant boobu moom xam nga mooy loolu mais nag sant yàlla parce que làmb moom noonu la li wolof naan day biir mais du biir mais day xëy lek wasin mais la ma woon bi taw rek jël ko. waaw parce que xaw ma c'est pas xam nga loo wax la instant bi combat boobu passé na passé na bëggatuma sax nekk di wax xëy na lu mënu woon ñàkk la te trop tard bis mën na ñëwaat incha allah bu yàlla defee jàmm dinañ dajawaat te dinaa ko corriger waat wan ne ko kat lii ak laa lee ak lële mais làmb jooju ñoom lim leen jaraloon parce que moom bi muy ñëw di bëreek man dama daan euh, poulain am xaw ma mbërëm kii la woon mooy mobile moom looloo gënoon yokk tax mu mu jaraloon ko lu yàgg moom après gisee nañ mu waxtaan waxu gor wax ma ne ma lépp lu mu a def si def na si lu nekk nag du ma ko nëbb mais lu def dina fa jaar dindi ko xam nga. mais tamit ah suuloon la bëggoon dindi. doy na waar làmb moom xam nga doy na waar quoi doy na waar ñun làmb ji dañ si ñëw nii pour xam nga di kii nii rek mais gars yi am na ñoo xam da leen jaral da leen jaral lu nekk wallaahi azim mais ñun nag lépp léeg dañ koy teg ci fair play terewul tamit duñ la def nit lu bon wala di def loo xam ne après sax mën nga ci am ay conséquences yoo xam ne yow bul xam mais terewul nag lépp ñu ngi santaat yàlla di ko encouragé nag di ko ñaanal ndam loolu yàlla na ko jige jige jig mais bépp adversaire bu am tëngeej nag yàlla na ko tër parce que ñun tëngeej la ñuy ñor quoi. léegi nga jógee ci combat boobu dem jëlaat Jara 2 encore. Mm-hmm. jëlaat kan ma jógee si combat boobu jëluma Jara 2. Mm-hmm. ma jógee si combat boobu kii laa jël nu mu tuddati sax Tafa Leer. xam nga ñoom bool bool yi dañ ma teg bët <laughs> dañ ma dañ saa ba ni may waxee ak yow nii am na benn bool bool bu ma topp rek bëgg a bëree ak man promoteur wax na ba sonn ma ne ko bëreewu ma ak booy yooyu. ban bëgguma tudd turam di ko may buzz. mais moom bu déggee dina amul buzz amul buzz de bëgguma ko tudd di ka may buzz du amee buzz si man parce que boo ko waxee mu dem naan ma yaa moo delloo sama. fi mu toll am nga combat fi mu toll am nga combat mais. du ma ko tudd nag man bàyyil ma wax sama combat rek. Hmm. nga jógee ci moom dem dal ci Tapha Leer. Hmm, ma jógee fa dem dal ci Tapha Leer ñëwaat. mu daanaat mu daanaat ma. léegi xam nga si laa jot si laa jóg nag ne génn jot na. si laa génn dem ba Casamance ñëw fekk foofu noonu samay tur sama turu papa sama turu yaay. fekk ko fa wallaahi azim laa la wax. te jëmu jooju moom moo ko fa yóbbu mais nag sant yàlla ah. ban jëmm jooju tey dëkk boobu noonu dem naa ba ñoom dañu taxaw sax pour jàppale ma pour ma doon seen mbër parce que bëreel naa leen ñoom xam nga waa Casamance dañ gëm làmb xam nga boo ñëwee si dëkk bi bëre mbapat foofu ma bëre fa ay mbapat ba guddi yi ñu toll nii bu mbapat amoon dañ naa ma carte téléphone woo ma ma ñëw xabas ko ñoom si jàkka jeeg seen jumaa yeeg jàkk yi lépp si ay mbapat lañ koy kiiwee ñu am seen mbër muy gañee ñuy mën di gën a di yokk affaire yi maa ngi leen si ñaanal en passage xam nga dëkk bu baax la Casamance. xam nga ñëw leeralal ma ci bi nga ñëwee fekk sa turu yaay ak sa turu papa. comme ci nan nga ko fa fekkee dama ñëw. xam nga après wax leen sama problème ak samay jafe-jafe instant bi te nit ku nekkoon si yoon mu metti trop xam nga tey ma nekk si yoon mais Mama Yaa kenn xàmmeetu ko day ñëw xam nga kenn xàmmeewu ko te man bu dee fit saabu du fóot boppam man bu dee fit ñàkkuma ko te wallaahi azim laa la wax amul lu yàlla di sàkk ma ragal ko bu ma ko ragalee yàlla na ma suñu borom faat balaa may yegg nii fi ma jëm man awma lu may tiit mais bu ñu ñëwee beneen Mama la ñuy gis mais nag xam nga rek lépp loo gisu nekk rek dafa am ay yoo xam ni ñun jiitaluñu ko woon au fond du cœur quoi parce que mooy li ma la wax dama daa am combat rek dem si géej gi dugg si ndoxum géej mi wala créer samay biteel ñëw taxaw même mbapat sax ah, xam nga mais biñ demee ba si biir nag am na yoo xam ne ni gars yi boo si jógul te maa ngi siy lancé nag bépp mbëran ah, képp ku taxaw pour doon mbër néew ma na ngay def nit lu bon lu bon parce que lu bon amul njariñ fii la yem xam nga lépp lu ñuy def nit rek xam nga na yem fii nii lépp lu ñuy def nit nañ koy seetaat parce que yàlla sàkk nit nga jël ko yan ko loo xam ne yow bu combat bi jeexee di nga néeg sax dem la nga gasoon nga dindi ko wala la nga suul te am na gàllaaj yoo xam ne même boo ko jéemee dindi sax du dañ nañuy xool suñuy diggante ak yaa parce que lii day jeex lii day jeex tey da ngay gis nit koo xam ne wallaahi azim day jaral nit man ne su ma namee yéene nit lu bon wala ma koy def lu bon pour récolter pour kii nii yàlla na këpp sama kaw des fois sax damay toog nit ñi naan ma yow mënoo doon mbër may leen lan moo tax ñu ne ma mbër il faut nga sadik il nga soxor te sadik bi pour man sa làmb jala rek bu jeexee jeex na waaw mais nag bi ma ñëwee fekk fa sama tur ma wax après ñoom ñu wax ma ñoom tamit ñu nekk nit ñu dëgg wax ma parce que moom seen moom tamit dafa doon ñëw dafa doon ñëw ay maire yu baax lañu benn boîte boo xam ne boîte secret lañ koy wax boo fu ñëwee dangay dugg xam nga jox leen ay mbiskit xam nga xewal ñu defal la ñaan mais ñoom dañ ma gis lak yàlla dogal ñu bëggal ma seen bopp ba ba léegi nii maa ngi dëgganteeg waa dëkk boobu xam nga maa ngi ñuy waa Kanaru ñëpp xam nga ñu may wax bëgguma sax tudd tuur gars yi di xam mais moom bu déggee loolu dina xam xam nga ñu wax ma ne ma sa tuur a ngi fi man tamit avant boobu ma ne leen génne ñu génne wax sama turu papa wax sama turu yaay wax ma man sama tur dëgg tarit parce que man Xaadim Rasul laa tudd ñu ne ma sa tur nii nii nga tudd xam nga après ma gëstu waaw yóbbuwoon nañ la fa voilà ma gëstu après ñu ne ma diw moo ko fi indi xam nga moom lañ doon ñaanal mooy Tapha Leer bu mujj bi. voilà mooy tafaa Leer ma ne ah mu ma waaw après ñu commencé fekk boobu bi ma génnee sama kombaa Tapha Leer kan laa dajee laat. mais la biñ la fa yóbboo sa combat ak Tapha Leer est-ce que bi nga ñëwee yëg nga sa bopp. waaw yëg naa sama bopp yëgu sama bopp. parce que am na loo xam ne nii woon nañ la bu baax. ci bu baax am loo xam ne nit ki mu mën mun na mën na nekk si yaw ay at. muy doog dañ am na loo xam mën na nekk si yow ba nga dee du dañ. yàlla nañu yàlla na musal nag ci mystique yooyu xam mais après noonu xam nga ñu nekk si combat ak bi nga ñëwee naka la demee. waaw ah, sama combat ak Tapha ni mu demee mooy dama ñëw rek taxaw man xaw ma sax man dama jékki-jékki rek santiir bi mu may dóor ko ak bi mu may jàpp boobu sax entraînement moo tax moo ma fa téye mais bu du woon entraînement ba mu ma dóoree laay wàcc mais ba mu ba ma dóoree ku noonu ma daw ñëw di ma jël man tamit ma ne ko tërëb dóor di ko dóor tànk si la ma plaqué mooy loolu. combat waaw combat yu yomb yoo xam ne nii man damay contact. ñi may kon xam nga kuy kon ay doomu daangu ay amaneex ay limousine ay sokosim xam nga nga ñu gis la xam ne yow mii nii pare nga nga ñëw benn action bu yow xam na mais nag du neen ko quoi mais nag lépp ñu ngi si dellu di santaat yàlla di sant Serigne Touba bu wér parce que ñun ay taalibe lañ doon murit bëgg a doon murit saadix xam nga du ñu bëgg dara nag bay def loo xam ne nit ki du ko àttan wala mooy loolu mais loolu noonu ja dama si jàngat dama si xamat àdduna lu bari gis nga kii sama doom yaay la Maurice la tudd sama combat yi ma am ndam yëpp ah ñun ñoo doon nekk guddeeg bëccëg suba ngoon xam nga tey yàlla dogal mu dem voyage nekk Brésil bi mu demee Brésil ba ba boobu ba léegi laa gëj a daan mbër tey ñëwaat na moo tax ma biñ ma waxee combat bi ma ne dama koy jël. wallaahi combat bi dina ci ñëw inclusion sax laa la wax. Uh-huh. moom moo ko daan dem jëli ji sama mélangeur Matar Ndiaye. mam ñaaw ñoom ñaar ñoo daan ànd. sa sama combat yi ma ñàkk yëpp du benn combat bu ko fi fekk mu ngi Brésil. te mi ngi nii ñëwaat nekk sama wet. ah laa du yomb voilà loolu dina dinaa si ñëw kaa doole <laughs> léegi nga jóge fa am am kan. ma jóge fa si laa amaat bu si laa amaat buur siin. xam nga boo bawal bawal yi moom dañ ma teg bët. ba ah, léegi kon kon fa la fa la tafaalee dugaloon moom fa la ñëw tegaat. voilà ñëwaat tegaat fa tànkam daanaan ma même sose nga teg la trois défaites. billaay ñëwaat ñëwaat. kii si la ma daanaat jara de mii nag muy quatre défaites yi ma teg la. mais bi nga teglee quatre défaites yi après toogaatuloo nga ne ma est ma bàyyi wala est-ce que du ma toog ma xoolaat sama entourage est-ce que yooyu yooyu amu ci. non man góor laa nag man sama àdduna man lu may nekk rek dama si dem ba jeex bis bu gars yi dañ may wax sax ñii di jooy fii ñii di xalangu ñi parce que man yàlla moo dogal xaw ma la laa defal nit ñi rawatina particulièrement Tëngéej man maa nekk ma bu ma neexee ne maa nekk seul mbër boo xam ne nit ñi toppeewuñu ma ndam wallahi azim laa la wax toppeewuñu ma ndam parce que ma doon toppee ndam ba ma bu yàgg. te billaahi wallaahi combat bi di nga gisaat beneen mobilisation di nga gis beneen mbooloo te dara nag mayuma ko lu dul taalibe respecté nit ñi jox nit ñi cër.